alaykum mbokki internet yi ñu naa leen bu baax euh, donc ziar leen ngeen wax ngeen di vidéo ak euh, donc di abonné am na internet tout le temps mu commentaire loolu dina xam boppam bi di ñëw naa defal sax dédicace chaque jour que day commentaire mais abonné gars aimé vidéo bi commentaire leen wax na dëgg na gars commentaire dee leen aimé loolu ñu gën a yokk volonté ñuy sawar vidéo quoi donc Sénégal de manière générale Europe laa koy euh, jour donc en joueur de Paris saint mais et tout euh, moom jamono bii nag euh, donc waa Tottenham ñoo ko moom waxoon nañ fi Aston Villa à un moment parce que Emery ko bëgg trop yóbbu nag fii Espagne xam donc bëggoon na kaa utiliser waat mais jamono bi feneen bàcce bu donc euh, Mourinho nag dafa bëgg def équipe bu baax boo xoolee euh, dafa toog sax préliminaire Ligue nekk sa joueur waa Marseille defaat nañ beneen offre après démb dañoo defaat tey beneen offre euh, mu bokk si liste bi xamante ne dañoo war a dem euh, jàmmaarloo ak kii di euh, Reims pour man donc euh, mën na nekk lu intéressant pour Olympique de Marseille à noter que Neal Maupay mooy jour bi nekk Everton waa Marseille defoon nañ def nañ offre donc pour remplacer Moumbagna kooku attaquant la donc pour le remplacer nag xalaat nañ ne joueur boobu la ñu waroon jël malheureusement donc offre bi xam waa Marseille jox nañ ko équipe bu Everton daf ko refusé buñ ñu jógee foofu Ramsey Détch mooy gardien bu bu Arsenal moo nekk numéro 2 en mois de moo nekkoon numéro 1 jamono bi nag Wolverhampton accélérer sur le dossier boo xoolee Wolverhampton euh, donc équipe bu baax la mu ngi nekk tout le temps en première ligue dernièrement noonu de Arsenal du si ñàkk dirigeant yi waxtaan nañ nag dirigeant yu Arsenal pour accélérer le dossier bu ko defee gardien bi mën a dem foofule di Wolverhampton Eriksen du côté de Ajax waa Manchester United boole boole ñu ko seen i plan du ko Eriksen jamono bi lenn rek la gis changer de club euh, selon yenn xibaar yu nekk foofu ci anglais yu si mel ni Time Sport euh, maintenant Ajax ancien club boobu la donc bëgg nañ ko accueillir instant yi on parle de moins de 6 millions d'euros nga bu demee euh, donc fële ci Espagne mën nañ leen wax ne AS selon AS AS dafa convaincu que ne kii di euh, kii di Gundogan day rester du côté de Barcelone et pourtant Manchester City ancien équipe am pour accueillir que et que le joueur veut partir maintenant je bi bëgg na mais entraîneur bi ko parce que si Ligue des Champions Coupe du Roi championnat xam besoin de de euh, intéressant au milieu défense la défense, te c'est un joueur de classe mondiale. maintenant ba négociation ngi am pour que waa Barça bëgg mu toog euh, na AS si di Gundogan de même si le joueur veut partir ça. Satriano benn jour la donc waa Inter ñoo ko moom daaw ñoo ko prêté woon Brest waa Marseille dem ñu ngi wax ni ñu ko doon xool ba xam mais finalement fële la nar dem euh, Lens donc Lens lay dem mu nekk un très bon joueur un très bon joueur bu am polyvalence bu ñu mën a wax. Barça rêve de Raphaël Leao du samay kaddu kaddu euh, di sport wax na si ak Gazzetta dello Sport fële ci Italie di wax ni ce sera difficile nag de voir Leao foofu parce que somme bi ñu ko bëgg a jaayee c'est plus cher que yeneen joueurs yi xam nga euh, Barça mu leen di laaj donc son joueur bu xamante ne di nga génne benn 90 millions lu mu dee dee donc du coup euh, Barça rêve du joueur mais est-ce que le joueur dina mën a dem foofu ak le somme bi xam nga ñoo ngi xam nga Chiesa à noter que waa Juventus 15 millions d'euros lañ ko bëgg a jaayee ba tax na Chiesa bu mën jàpp naa moo gën a yomb di nga mën a renforcer sa sa ay côté du moment ko yow nee nga bëggatoo Ansu Fati bokkul say plan euh, Victor Roque Betis Séville la bëgg dem ñu bëgg ko yóbbu Sporting te la gaa Betis Séville la bëgg dem wan waa Barça ne am na potentiel bu ko defee mu bu ñëwaatee retour de pare mu joué mais bëggul dem fële ci Portugal te actuellement moom moo gën a taxaw si dossier pour am euh, Victor Roque mbokk yi euh, bu ñu jógee foofu euh, donc yenn information yi xam ni quoi yente ba tey intéresse Marseille di Maggio l'Orienté mooy joueur boobu xamante ni mu tiré coup franc Euh, l'orienté mooy jour boobu rek di tirer coup franc comme euh, Juninho nekk Sassuolo waa Marseille ba tey intéressé le dossier mais man je pense que bu ñu amee réew boo mën a dinañu am kaw booy boobu nag donc kii daf ko xam bu baax euh, entraîneur bu Marseille désert bi parce que désert bi nag loo si mën a xam rek néew na Sassuolo donc lii Sassuolo di laaj c'est plus de 22 millions on va voir la suite concernant ce dossier là waa waa waa Lyon dañoo bëgg a finaliser avec le gardien bu nekk Paris Saint-Germain ñuy wax Rémi Deschamps ñëpp xam nañ ne Lopez bi paas sax teguñu ko dañ ko bëgg a jaay carrément donc international portugais bi donc ñoo ngi wax ne Jérémy Deschamps la bëgg a jël euh, Kylian Mbappé euh, actuellement dafa nar a yàqal waa Paris Saint-Germain mooy waa Paris Saint-Germain ñoo ko toog ko war 55 millions yu ñu ko emal donc déposé na LFP mais dafa déposé en même temps une UEFA léegi ba taskatu xibaar bu su ma léegi nee na euh, bu fekkee dañoo def bu fekkee waa kii fayuñu waa Paris Saint-Germain mën nañ leen dem ba exclure leen sax en Ligue des Champions ça c'est c'est critique xam naa ne ku bañoon Mbappé du côté de Paris tey ngay gën a bañ Mbappé te pourtant Mbappé si li mu moo nekk si dëgg. Mbappé moo nekk si dëkk de attention ñoom ñii néewuñu si dëkk Mbappé dañ ko war a fay xaalisam nañ ko fay xaalisam gars yi léegi Paris Saint-Germain xam nga ne ñàkkuñu lu ñu joxe naar yi waa Qatar ñàkkuñu lu ñu joxe. à noter que euh, joxe nañu tamit information concernant Paris Saint-Germain mën nañu wax ne Lookman bi ñu wax ne day def forcing pour dem fa nii nii demagul parce que Atlanta refuse de le vendre c'est le joueur bi nag moo bëgg a def le forcing pour dem foofu mais waa kii dañoo refuser à noter ça yenn information yu xamante ne sax donc mën nañ ko joxe mooy troisième offre pour Sildia Kylian Sildia nag benn euh, latéral droit la euh, bu nekk fële ca euh, Fribourg néew na si Jeux olympiques ak avec l'équipe de France moom aussi waa Marseille joxaat nañ beneen offre dañu ba war a finaliser Marseille li ñu jënd si joueur kenn xamuñu toll bu fekkee dañoo jënd ñaari joueurs yi nii moom lim fii nii dina doon douze joueurs yu ñu jënd dèjà jënd nañu ay 9 joueurs mais Marseille affaire bu garaaw donc y Jordan Tézé Euh, bi xamante ne 24 ans la am signé di du côté de Monaco pour 12 millions mu nekk un un joueur boo xamante ne temps yëpp si semaine bi yëpp doon nañu dégg ne euh, Monaco daf koy laaj. mbokk yi ba tey info cette fois si dañuy wax si euh, Mikayil Ngor Faye Mikayil Ngor Faye moom chaque jour ak fi ngeen koy dégg. démb wax nañu Milan AC cette fois ci on parle de de Lille moo dugg sur le dossier parce que Lille aussi loo si mën a dégg dafa perdre jour bi ñu wax leen yoroo di côté de Manchester United ba tey rem donte jënd nañu euh, Mason Mendy dama bëgg un jeune joueur bu xamante ne mën na accompagner ce groupe là surtout que am nañ benn match euh, barrage pour qualifier directement Ligue des Champions li ma wax sànq si ci si si euh, lii di Barça lay waxat mooy que boo gisee ay boo bëggee gisee ligue champion championnat coupe de France il faut nga effectivement effectif bu étoffé donc Mikal Ngor Faye mën na dem foofu maintenant nag loolu li si lii am ren ren dafa jiitu dafa jiitu ñëpp si dossier ba pare def offre waa Lille bëgg nañu def offre aussi Lille à noter que Lille nag donc euh, am nañu les joueurs qu'il faut et c'est un c'est un projet assez ambitieux en termes de niveau si dernière saison yi lii Lille wane ren wane ren tout le temps dernière deuxième partie saison day day compliqué et pourtant lancé nañu ay jeunes joueurs yu bëri sur le côté damay lancé jeune joueur jox ko temps de jeu ren ragalul loolu entraîneur bi fa nekk ragalul loolu donc mën na nekk choix bu baax pour Mikayil Ngor Faye maintenant de l' autre côté aussi tamit euh, buñ ne la Lille aussi c' est un bon choix Lille aussi peut être un très bon choix c' est à lui nag de de xool bu baax démb wax nañ ne Milan daf ko refusé donc Barça ku kuy joxe som lay xaar plan Barça moom góobu na bokk na quoi et on va voir la suite concernant ça mbokk yi gis nañ tamit premier entraînement bu Keita balé avec Super Sport Keita Baldé franchement on lui souhaite bonne chance en espérant que match yi du côté de Turquie ñoo gis que euh, xool ban Keita Baldé la ñu am xam nga euh, avant de wax ay équipe nationale wala ak déjà ne jouer am temps de retrouver retrouver son football avant de parler ay objectifs li lay def lay def donc mbokk yi lii ay mercato dinañ jeexal information yi wa sikidi Sadio Mané. bokk yi ñu joxeel information yi wax si Sadio bi ñu wax ne dañuy dem Al Ittihad équipe bu Karim Benzema ñu ne euh, dañoo def réunion avant-hier barki démb euh, pour dàqalu entraîneur bi Castro ndax dañ koy téye tout mais Cristiano Ronaldo moo leen wax ne ñu ko téye ñu jënd quatre joueurs na joueurs yu si ñu bëri ñu bëri nag ne Sadio lay wax alors que est-ce que Sadio Mané lay Sadio Mané mënoon amul niveau. Ronaldo moom moo woo si sa moo woo Sadio si boppam naka ñëwal ñëwal fi Al na boo leen boo leen fàttee ko Firmino dafa woo ba sonn Sadio Mané pour mu ñëw si clubam donc bu demee al ihtihad bi xam am na jabi am Benzema ak moom mi trio bu doy waar la parce que Al Nassr équipe bi c' est c' est pas lii quoi dafa manqué lu ñeneen dañuy rey ba tas donc Sadio Mané c' est vrai temps yi retrouvé wul niveau bi mu bëgg mais bu demee euh, fële ngale euh, na laa ma Al Nassr footballam ak Al Nassr ak kii al ihtihad mën na changé parce que boo xoolee Ronaldo xam nga sama bëgg naa ko trop de mais fële ca équipe am ñëpp Cristiano Ronaldo la ñuy seet boo xoolee Ronaldo bu blessé Sadio si talent si lay gën a génnee moo daaw deuxième partie saison que Ronaldo bu fa nekk Ronaldo ñëpp si moom ñëpp moom la ñuy seet ñëpp moom la ñuy seet alors que Benzema c'est un joueur bu xamante ne trio bi ñëppaay gis nga jabi dafa ñëw dugal deux buts avec à côté de la Sadio Mané gis un autre maa la man day bu bu demee équipe bii man maa ngi si équipe boobu wax dëgg fi yàlla donc on va voir d'ici euh, fin de semaine bi ndax loolu dina confirmer ou pas bon yi li mu nekkoon xibaar yi ma bëggoon partager ak yéen ci commentaire wax leen ma seen xarit Asien bi gis wax leen ne maa yi disponible gars yi ba tey dama ko gëj a au 77 352 31 01 maa club yëpp a ngi fi maa sélection yi mu ngi fi ak blouson 77 352 31 01 mbokk yi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur football TV